mbokkente ne di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm mbaa yéen a ngi waajal korite gi ci yàlla sama mbokk séeréer moom xam naa ne ñu ngi commencé feetu mais nag ndànk rek yàlla baax na ay ci maa ngi leen ziar bu baax a baax a baax tey mu ñëwaat ak yéen seen troisième partie histoire ndaw soosu nga xam ne euh, samedi ak dimanche maa ngi ci doon expliqué gis ngeen ma wax leen ni mu mujjeek xale bu góor boobu doon ko fréquenté ba saa su duggee néegam rek mu jàppanteeg ay nelaw ba far ëmb daati ci feeñ xamul sax ni xale bu góor bi moo ko ëmbal ba ni mu toxoo daal di génn seen koñ ba ni mu laajtee yaayu xale bu góor bi ba ni ko xaritu xale bu góor bi avoué que ne xale bu góor bi nee na ko moom moo ko ëmbal mais nag moom tayu ko ndax su musaana dugg néegam mu nelaw day da koy day koy songu mais su ko songaan ba pare da koy réccu ndax du xam sax lan moo ko ko defloo nee na ci noonu nag bi ko xale bu xaritu waa ji la vérité ni ko waa ji dañ ko affecté mais wax na ma avant muy dem que ne moom moo la ëmbal yow tamit yëgoo ko woon ndaxte à chaque fois bu duggaan sa néeg day nel da nelaw su ko defaan ba pare aussi da koy réccu nee na ci noonu nag soxna Faatu ma daal di dem wax ko sama tante bi nga xam ne bi sama yaay gaañoo moo ma doon jàppale nee sama tante bi waaru ci yàlla daan ne lii moom du neen moom lii du neen nee ci noonu ñu daal dem dellu ci ay sëriñ nee bi ñu delloo ci ay sëriñ soxna faatu lépp lu ma yoroon lépp lu ma liggéeyoon ci ay sëriñ la la mujjee dem nee fu nekk dem naa fa lu nekk def naa ko daj naa lu ne dëkkoo dëkk wër naa ko pour ñu dindil ma lii nga xam ne moo di def def bu bon bi ñu def sama yaram ak niñ ma tëkkoo woon ne ma dinaa wër di am ay doom yu bokkul baay te mi ngi commencé def ay signe mais nee na ba léegi soxna Faatu dara fajuwul ndeysaan nee na ci noonu mujj gi ma sonn daal di toog jàpp ci yàlla continuer ak sama ëmb nee na bi ma ëmbee ba ay jamono yàlla daal di may dimbali ma daal di am doom bu góor ndeysaan ma ne ko eskay nee na amee doom bu ma daal koy tuddee sama benn xarit nee sama xarit boobu nag moo ma doon fayal sama néeg bi ndax bi ëmb bi soree dama arrêté woon mënatuma woon a liggéey sama xarit boobu doon ma jàppale di ma fayal di ma dimbali moo tax bi xale bi juddoo ma daldi ko koy tuddee nee na nag moom tamit bi xale bi juddoo ma tuddee ko ko après mu ne ma léegi dinaa la yóbbu ci benn kër boo xam ne yow rekk yaa fay dëkk kër gi calme na bu ko defee nga dem dëkki fa daal di nàmpal sa doom nga xam ne kenn du la sonal mais bu la neexee aussi néeg bi bu ko quitté tëjal néeg bi mu continuer di ko fay yow nga dem ci kër gu calme boobu nga dëkk fa di nampal sa doom bu ko defee ñu bañ la sonal nee na soxna Faatuma daal di dem dëkk ci kër googu kenn sonaluma ma nekk fa tranquillement dem dëkk fa nee na quatre mois après ma ne nag comme am naa quatre mois naa dem dellu fi ma dëkkoon yàlla baax na ma continuer sama liggéey boot sama doom daldi di nàmpal nee na bi quatre mois matee ma dellu fi ma dëkkoon nee na soxna Faatu bi may dellu ca néeg ba ma dëkkoon rek tombeek xale bu góor bi jóge fañ ko affecté woon daldi di ñëw nee na jour bi ma njëkkee gisaat xale bu góor bi soxna Faatu nee na ma sama xol bi daal di metti ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na ni sama xol bi di méttee di méttee nee na mujj gi maag xale bu góor bi ñuy rombante ci koñ bi ma koy romb mu may romb may boot sama doom mu may xool ma koy xool du wax du ma wax ndeysaan nee na mujj gi xale bu góor bi dem ba mu yàgg xale bu góor bi mujj gi di ma topp nee su ma jëlee oto xale bu góor bi jël oto su may dox xale bu góor bi di dox di ma topp ndegete def na ko def na ko def ba xam fi ma dëkk ndeysaan mu ne ko est-ce que yàlla nee na ci noonu ba mu xamee fimu mu fi ma dëkk mais nag ñamewul dugg sama kër ndaxte fit bi mi ngi maas topp na ma daal ba xam fi ma dëkk waaye xelam xalaatul dugg sama kër nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu yàlla dogal papaam dafa nekkoon Espagne papaam daal di ñibbisi nee na bi papaam ñibbisee nee na xale bu góor bi daal di pàppam papaam bi ak ni mu def ba ëmbal ma te man yëguma ko te moom tamit su ko musaana def ba pare da koy réccu ndeysaan nee na papaam daal ñëw sama kër ndeysaan bi mu ñëwee sama kër ànd ak moom ne ma dama ñëw pour ñu waxtaan ndeysaan cey nena na bi ni ko man de li ma jaaxal waa koñ bi yépp nee nañu lii dafa bizarre ci ñoom ndaxte koñ bi ñëpp xam nañu ne xale bu góor bi li mu def tayu ko te yow tamit nee nga ëmbal na la te yëgoo ko nit ñi o ñi au début gëmuñu leen woon mais léegi dem nañu ba commencé comprendre ne lii am na lu ci rax ndeysaan nee na paa bi ni ko comme nag def-def la te sa sëy bi nga jóge ñoola ko def kon yow ak sama doom yéen ñaan ñëpp kenn defu ci daara maanaam yéen ñaan ñépp ay victime ngeen comme ay victime ngeen nag bàyyi leen lépp ci loxo yàlla yàlla baax na ndeysaan mu ne ko est yàlla nee na ci noonu paa bi ni ko léegi téyal xale bi bu xale bi amee un an nga indi ko mayor ko nee na paa bi ne ko bu ko defee nga mën a dem continuer sa liggéey ndax yow ñépp nee nañu liggéeykat nga nee na ma ni ko ok nee na ma soxna Faatu paa bi ñibbi continuer di toppatoo xale bi lépp lu war ci xale bi paa bi ak doom ji ñu koy def. nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu ba yàlla def xale bi am un an comme ni ma ko waxee woon. nee na jour bi mu amee un jour boobu laa ko feral le même jour aussi laa ko delloo maamam comme maamam ne woon na ma su feree. naa ko indi su amee un naa ko indi mu yoral ma ko ma mën a dem continuer sama liggéey nee na le même jour ma yóbbu ko nee bi ma ko yóbbee chaque semaine nag ma dem seeti sama doom nee na ma soxna Faatu dama bëgg doom billaahi chaque semaine ma dem seeti ko maamam bu góor bi jur papaam yor na ko ndeysaan nee na li ma metti mooy xale bu góor bi même su fekkee li ñu magante bariwul dama kaa dépassé ndax nee na góor ak jigéen xam nga leen même bu ñu maasee ku jigéen ki day dépassé ku góor gi ñu ne man ak xale bu góor bi nag noonu la fa demee moo tax parfois affaire bi di ma metti ndax su ëmb bi bu ñu xamee ne moo ma ëmbal day mel ni sama rakk moo ma ëmbal donte ma ak moom ñoo bokk génération nee na ma dëkkee noonu chaque semaine ma dem seeti xale bi nee na xale bi dem ba am quatre ans bi xale bi amee quatre nag ba léegi xale bi xam na xàmme na ma xam na ma yaayam nee na ma ne cette fois si nag naa dem jege sama famille ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee ma soxna Faatu lu tax ma dem jege sama famille nee na yemu ma de dama dem ba sama kër papa ma daal di fay tabax benn néeg ndax maa ngi doon liggéey nee na ma fa tabaxee benn néeg ci sama diggu kër papa lu tax ma def loolu c'était juste pour gën moytu ndax nag dama ni comme lee bi may dal man kese maa dëkkoon kooku du ñëw di ma fréquenté may nelaw mu may tëddee ba ma ëmb cette fois ci naa tabax sama kër papa néeg bu ko defee xanaa foofu balaa maa nit di def loolu sama waa kër papa comme maa ñoom ñoo dëkk dinañ ko gis te dinañ ko yuuxoo nee na ma daal di décider loolu mu ne ma xanaa soxna Faatu kon maa ngi moytu ma ne ko billaay yaa ngi moytu ndeysaan ci yàlla nee na mais bi ma fa dëkkee ba pare ma continuer di wut ay sëriñ ndax nag def-def bi nekkoon sama yaram dama bëggoon mu deñ ndax biñ ma tëkkoo gëwuma ko kom gëwuma ko nag ba ma am preuve bu leer ba ñu ëmbal ma te yëguma fuñ ma ëmbalee te ki ma ëmbali nee na xamul lan moo taxoon su duggee sama néeg ma nelaw ba moom it xelam di nekk ci man kon naa commencé faju ndeysaan nee ci noonu may wut ay maara ñu may ñaanal ba mu yàgg ne na sama benn cousin daal di ni ma comme boobu ba léegi yaa ngi joxe sa xaalis amoo résultat bàyyil ma présenté la sama benn maara nee na benn cousin am wax ko loolu nee cousin bi nag maara boobu mu ko présenté moom xamoon na maara bi bi maara bi nekkee xale mais da koo fàtte parce que da ko gëj a gis nee na bi ko Mara bi expliqué ba ne ko diw xam nga ko wax ko ni mu mel ak yooyu mu ne ko si xam naa ko mais kooku ba mu koy mujjee gis xale la. nee na cousin bi ne ko kooku dafa demoon daara jàngi ba mu jógee daara aussi dafa dem dugg ci àll bi jàngi xam-xam kon xëy na bu ma la booleeg moom dina la fajal sa soxla ndeysaan. nee na soxna Faatuma nangu ndaxte kooku xale la benn ñaar comme nee nañ ma dafa jàngi woon moo tax ma gëj koo gis ñett bi mu jàngee alxuraan ba pare dafa jàngi xam-xam moo tax mu gëj koo gis ma d'accord ma ne amul problème ndax boobu nag bëgguma woon lu dul génn ci situation yi ma nekk soxna faatu ndax nee na li ma jaaxal ba jaaxal ma jamono yooyu soxna faatu góor gu ma romb bëgg ma te nag ñi ma doon bëgg ay autorité lañu de ay kilifa ci dëkk bi ay kilifa yoo xam ne ñoo yoroon ay ndombal tànk jamono yooyu ci réew mi nee na ñu may bëgg ndax man yàlla daf ma dimbali woon dama doon liggéeyee foo xam ne ki ma doon liggéeyal ci état bi la bokk nee na kon ci état la doon liggéeyee ne ma fay dajeek ay autorité ay kilifa yu yor ay ndombal tànk ñu may bëgg ndax nag boobu maa ngi commencé màgg di diryanke di jongo ma taay fin ba ma taay finoon deñ na nee jaaxal ba tax ma accepté sama maara boobu sama cousin bi booleel ma daf cee am ñeenti yoon yoo xam ne soxna faatu kenn ku ci ne autorité nga kenn ku ci ne takkal nañ la ndombal tànk ci réew mi jamono yooyu nee na kenn ki njëkk a ñëw dafa ñëw labat ba jour bi mu waxtaan see mu tàggoo ne jour sàngam dinaa ñëw ngeen may ma jabar nee na soxna faatu ba mu demee ñëwaatul nee na ñu bàyyi mu sedd nee na keneen ki ñëwaat defaat la même chose nee na ba mu nekk quatre personnes yoo xamante ne ay kilifa lañu ay autorité lañu woon jamono yooyu ci dëkk bi mais dañuy ñëw waxtaan si ba mu des ñu jàpp bis su ñu demee du ñu ñëwaat nee na xanaa quatre fois nag dépassé na les bornes nga ne ci noonu nag sama famille jaaxlewaat ndeysaan daan ne ah lii nag de mi ngi bëgg a doy waar diw ni mu rafetee ak ni mu jekkee quatre fois ay autorité di ñëw di ko takk si ku ñëw doo del siwaat ak problème bi ko daloon fa mu luwe woon xale bu góor ëmbal ko te sax yéegu ko ay waay diw mi ba léegi affaire yi bàyyiwu ko nga ne samay famille jógaat wutiwaat ay sëriñ soxna faatu nee ma soxna faatu amul fu ma tegul tànk ci Sénégal di wut ay sëriñ ndax nag affaire yi dafa demoon ba wane ne carrément man mii lii ma dal def def bu bon la nee na façon sangatu bu bon bu ne sangatoo naa ko lu nekk sangatoo naa ko mais nee na soxna Faatu ba léegi rek def defi dañul ci man lu ma yaakaar mu tas góor gu bëgg boo ñëwee waxtaan si ba ñu jàpp bis nga dem sa yoon ndeysaan ma ne ko cey yàlla yàlla baax na cey nee na ci noonu ma commencé di jëflante ak Mara bi ma sama cousin bi booleel doonte xale la xëy na màgg na léegi ci jëm ndax bi ma koy gëj gis xale la woon ma xawoon ko xeeb nag ne sama cousin bi daal di may convaincre ni ma xale la mais jàng na xam-xam jàng na alxuraan ba wàcc jàng xam-xam yow danga am problème wax ko rek mu defal la ay ñaante loolu lay liggéey nee na ma accepté nee na bi ma ko gisee daa di waxtaan ak moom nee na mu daa di may laaj trente cinq mille francs CFA nee na soxna Faatu nekkuma fa di waxaale de ci saasi laa yëkkati wàññi trente cinq mille jox ko ndax nag sama problème yi na faju rek man lijjantiwuma xaalisuma ci ñàkkam déet ndax li muy dund dafa metti nee na bi ma ko joxee trente cinq mille nee na waa ji ni ma léegi dama lay defal ay njaq nga sangoo ko léegi su njàkk yi jeexee après dinaa la jox loo xam ne danga koy takk soo ko takkee nag xëy na yàlla dina def say problème yëpp daal di wàññeeku ndeysaan nee na ma ne ko d'accord ci yàlla nee ma soxna Faatu ñu dëkkee noonu benn jour mu ñëw indil ma siwo 5 litres siwo 5 bi mi ngi ci def ndox mais nee na ma soxna Faatu loo xalaat ci siwo 5 litres bi mi ngi ci ay xujum xujum ay lu kenn xamul ndeysaan nee na bima tiimee siwo cinq litres bi sama yaram bi daw na ma ne mais nag comme man maa bëgg a faju bu ma fi nekk di taamu ay ndox mi nii la mel nii la mel nee na ma daldi jël daal di sangoo nee na mu ni ma benn sangu timis benn sangu gee benn sangu minuit nee na ma ni ko sangu timis bi de moo ma ci jaaxal ndax nag parfois timis daf may fekk ci yoon bi may wàcc di ñibbisi nee na mu ne ko boo egsee rek mun nga kaa sangoo nee na soxna Faatu mu continuer di sangoo siwo cinq litre bi comme ni ma ko waxee ba siwo cinq litre bi jeex nee na après mu joxaat ma yeneeni siwo yeneeni siwo nee na yépp ma daal di koy sangoo ndeysaan ma ne ko est nee benn dimanche comme man dimanche du ma liggéey nee na ma toog sama néeg maara bi daal ñëw bi mu ñëwee suñu kër daal di may fekk ma julli ba pare bay toog di wird nee na mu nuyoo bi mu nuyoowee mu daal ma ndax ma egsi nee na ma ne ko waaw mun nga egsi nee na mu ñëw bi mu ñëwee jàmm sante après daal toog nee na mu ne ma soo gisee sama ñëwu tey bi comme njàkk yi jeex na te dafa am téere bu ma la war a jox nga takku ko ndax téere boobu ci faj bi la bokk mais nag téere bi bind naa ko ba pare waaye pareegul ndax dafa am lu mu war a àndal te faaw ma ñëw ma laaj la loolu ba pare nga ma doog a mën a ëw téere bi nee na ma ne ko téere bi lan lay àndal nee na mu ne ma morso boo xam ne ci mbalit la jóge nee na ma ne ko morso bu jóge ci mbalit ah est-ce que doo ko wut ndax bu dee mbalit rek mun na am nga romb mbalit nga am fa morso ndax man mii kat aw ma temps wu wuti morso bu ànd ak mbalit comme yow sa liggéey la te yaa ko gën a xam demal nga wuti ko ndax man tey dimanche bi kese laa am pour noppalu bu ko defee yow boo ko wutee di nga xam ban façon morso nga soxla yow mi nga xam ne yaay defar téere bi nee na sëriñ bi ne ko waaw ma ni ko eskay nee na quelques jours après rek sëriñ bi ñëw fa indil ko téere bi ne ko téere baa ngi nii téere bi ma la doon wax morso bu jóge ci mbalit lay àndal dem naa ba ci benn sën gis naa fa morso jël naa ko boole naa kook téere bi ëw naa ko léegi mi ngi nii am takku ko te nag soo ko takkee nga toog xaar soo toogee xaar bépp def-def ak bépp lu ñaaw lu ñu defoon ci sa yaram dina deñ te léegi yàlla may la tawfiix ba jëla doon bëgg ba bëgg laa ñaan si dina ci am kenn ku ñëw daldi mottali yéene bi ndeysaan nee na soxna Faatu jël téere bi daldi takk ma ne ko eskay ci yàlla nee téere bi su ma ko takkee damay dëkkee ay nelaw damay nelaw rekk nee na su ma tekkee téere bi damay firi nee na soxna Faatu xanaa mënoon naa bàyyi ci loolu xel su ma takkee téere bi damay nelaw su ma tekkee téere bi damay firi nee na waa léegi du waruma woon a xalaat ne téere bii moo may nelawloo ma ne xam nga lu ma xalaat ma ne ah xam naa man ma sonn ndax nag liggéey bi may liggéey dafa metti xam naa moo tax fu ma toog nelaw nee ma daal di koy jël à la légère ma ne ko est-ce que nee na ma continuer di takk téere bi mu may def la même chose te waa ji daf ne ma soo sangoo ba pare ba wow rek takkaatal téere bi gaaw léegi waa ji xam na ne kon suma ma sangoo ba pare damay takkaat téere bi nee na waa ji après dafay ñëw heure yi nga xam ne wàcc naa ba war a sangu ba pare nee na waa ji ñëw su ñëwee ne ma day continuer di ñëw di ma ñaanal mais su ñëwee sama néeg lay ci fauteuil bi yor ngandi kurusam di kacci kacci nee na man fekk na ma takk téere bi man ba nelaw ma ne ko ceey nee na ci noonu waa ji tamit def la même chose que bu xale bu góor bi def seulement que mook xale bu góor bi bokkuñu kaa ndax xale bu góor bi tayu ko mais kii nag moo ko tay ndax moom moo ma jox téere boo xam ne su ma ko takkee damay nelaw xale bu góor bee nag victime la woon mais moom moom moo ko tay ndeysaan nee su ñëwee toog ci fauteuil bi di kàcci ci naan man lay ñaanal ndax ñaani dafa am saar yu mu war a tari ma di ko dégg su ma toogee noonu ci néeg bi di ko xaar mu ñaan ba pare balaa ñaan ba pare ak kurusam gu gudd kurusam gu rëy soxna Faatu man nelaw nee na ba ma nelawee premier jour mu ñëw mu ñëw di kàcci kàcci kurus bi ma tëdd rekk nelaw nee na le bi ma yeewoo ma gisaat la même chose bi ma doon gis bi xale bu góor bi daan dugg sama néeg nee na ma yeewu rek ma gis liquide ci sama kanam nee na rek sama xel dem ca la xale bu góor ba defoon ndeysaan nee na soxna faatu ma daw wutali hôpital ndeysaan ci yàlla nee bi ma wutalee hôpital ma dem ma expliqué leen ko ma ne leen dafa am ku dugg sama néeg démb mais bi mu demee tey bi ma yeewoo dama gis liquide sama kanam ma bugguleen woon laaj ndax dafa yegg ci man wala déet nee na sage-femme xoolal ko ni ko non fii kenn eggul sa kaw mun na am da doon gént comme da doon gént lool day am xam naa sûrement da doon gént ndeysaan nee na soxna Faatu ma ne ah alhamdulilah kon man mi dama ami rab xam naa rek ay ay ay rab yi guddi ñooy sëy ak man waaye kii kii sañul loolu waaye ndeysaan nee na soxna Faatu ma daal di continuer ca la ma nekkoon continuer sama liggéey nee na waa ji nag jour boobu la fa gëj te dem naa hôpital waa hôpital yi ne ma dara ken tëddeewu la mun na am da doon gént nee na soxna faato xanaa sama xel war naa dal ma ne ko ah bien sur te nee na waa ji aussi jour boobu la ko njëkk a def jour boobu la fa gëj nee na ba pare waa ji daal may woo ni ma garab yi jeex nañu léegi nag comme garab yi jeex nañu dina am yeneen yu ma la yónnee waat mais da xaar tuuti. léegi man dama war a dellu fa ma jóge woon le temps que temps bi nga xam ne ci laa la war a joxaat garab bi ma ñëwaat jox la ko ndekete yoo ndekete yoo ndekete waa ji ni ma ko xale bu jigéen bi waxee nee na ma soxna faatu comme ni nga koy waxee ndekete waa ji cukkum njaay na ba pare ndekete looloo tax mu daw daan ne garab yi jeex na dem yoonam ndeysaan te man tamit hôpital rassuré na ma ni ma du dara dama doon gént nee na man tamit aw ma ñaaw njortu ci moom bi ma nee garab yi jeex na dafa war a dellu fa mu jóge woon rek nee na ma daal di ko koy nangul mu tàggu ma daal di dem ma ne ko eskay nee na un mois après gisuma samay règle nee na ma ne ah waaye lii du dëgg waaye xam naa rek stress beeg jàppal bàyyil yeeg ak xalaat yi ma nekkee ndax def-def yu bon yi ñoo ma jàpp waaye dem na hôpital ba ñu ne ma kenn tëddewu la waaye lii lii du neen nee na ma soxna faatu mais ba tey sama xel dalul ma ne comme am na retardement naa dellu hôpital nee na soxna faatu bi ma delloo hôpital ñu xoolalaat ma même personne yi ma xoolaloon ñoo laa fa fekkaat ñu xoolalaat ma soxna faatu ñu defal ma test rek ñu ne ma danga ëmb ba am un mois nee na ma ne leen déedéet yéen ma de yéen ñëw naa fi un mois bi ngeen wax il y a de cela un mois ñëw naa fi ne leen ngeen xoolal ma ndax dañ maa tëddee wala déet ngeen ne ma kenn tëddeewu la ëmb amu fi dara amu fi yow mun na am da nga doon gént un mois après ma ñëw nga naan ngeen naan ma ëmb nga ba am un mois non loolu mënuma koo gëm nee na sage-femme ne ko xam naa test bi ñu jëndoon moo baaxul wala boog dañoo juumoon mais daal danga ëmb chet tët ma ne ko eskay nee na ci noonu rekk soxna Faatu maa ngi àndoon ak sama xarit bi rekk nee na may bërëngu ci hôpital bi nee na may yuuxu naan lii mënul nekk ndeysaan nee na waa hôpital bi yëpp di ma xool nee na sama xarit bi di ma téye nee na ma mel ni ku amee ndeysaan mu gi ña nekkoon ci hôpital bu yépp naan ay waay kii de ëmbam bi neexu ko kii de nañu def ba ëmbal ko xaw ma nuñ ko ko defee waaye ëmb bi neexu ko nee na ñépp ku nekk di commentaire mais nee na faaleetuma woon boobu la nit ñi di wax man nouvelle bi ma dégg moo ma naqari ma yuuxu ci kaw amatuma lu may nëbb nee na sama xarit bi di ma calmer di ma kalme ndeysaan nee na ñépp nag di ma xool bëti yërmande may jooy ma yuuxu ci hôpital bi ci yàlla nee na bi ma yuuxoo ba sama xarit bi calmé ma calmé ma ba ma xam ne sonn naa faaw ma calmé wu ndax amul nu may def lu dul calmé wu ndeysaan nee na sama xarit bi ne ma lii du neen léegi au lieu ñuy dellu kër ga kaay ma yóbbu la ci benn paa bu nekk ci koñ bi paa ku aay la te bu la xoolalee dina la wax lu nekk ci yow yépp te paa bi mun na am mu génn la ci situation yi nga nekk ndeysaan nee na ñu dem ci paa bi nee na paa bi nag bañ fay dem maa ngi naan sama bopp ma ñàkk jom man sëriñ def ma lii ma naan damay demaat ci sëriñ waaye nee na faatu sax cette fois ci yàlla dimbali na ma ndax paa bi ñu jëm paala amul caaxaan liggéeyam rekk lay def nena ma àndak sama xarit bi ñu egg paa bi daal may seetal ñu ne paa bi taj daf maa seetal rek ne ma soxna si yow dangaa ëmb doom bu góor ndeysaan ma ne ko ci yàlla ñu bi ma nee dangaa ëmb doom bu góor ma ne ko ay papa billaay dëgg la hôpital laa jóge nii ñu wax ma danga ëmb waaye ñoom moom egguñu ci góor ndax un mois la ëmb bi am nee na paa bi ne ko góor nga ëmb te sax yow sa ëmb bii kila ko teg daf la jox gàllaaj gàllaaj bi nag ba nga ko takkee ba tey waa ji lu ko neex def na la ko te xamoo ko ndeysaan nee na mu ne paa bi dëgg la gàllaaj bi mi ngi nii sama ndigg ma takk nee na paa bi ni ko gàllaaj bi baaxul léegi jox ma gàllaaj bi ma xool ndeysaan nee na mu tekki gàllaaj bi daal di koy jox paa bi nee na paa bi xool gàllaaj bi rek daan ne laay kii moo bon kii de xam-xam bu ñuul la def ci gàllaaj bi dalaa nopp noob bu bona bona bon la la ba tax mu jekku la daal lay def lii mu la def ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na soxna faatu ci noonu ma siggi xool paa bi ma ne ko papa ki ma def lii moo ne de sëriñ la ni yow <laughs> ndeysaan nee na paa bi ne ko ah déet melul ni man kat <laughs> dañoo bokk mécc rek waaye melul ni man moom xam-xam bu bon lay def man defuma xam-xam bu bon ndeysaan nee na paa bi ne ko jox ma gàllaaj bi ma xool mu jox ko ko nee na paa bi jël ciseau dagg gàllaaj bi bi mu ko daggee di génne morso yi ci nekk paa bi xool xool ba mu yàgg paa bi ni ko kii lii mu def nii mën naa ko de waaye man duma ko def ndax lii baaxul daf laa def loo xam ne nopp na la ba li mu bëggoon ci yow mu daal di koy am mais man xëy na sëriñ la may sëriñ mais maa moom bokkuñu li ñuy def ndeysaan mu ne ko cëy yàlla nee ma soxna Faatu man dama nelaw ndax lu tax ma nelaw waa ji avant mu may defal gàllaaj boobu di ma ko jox may takk mus na ma ni soxna diw yow danga maa yàgga neex nag depuis ba ma nekkee xale ma la daan gis danga ma neexoon torop nee na ma jàpp ne xëy na waxi xale la nee na mu jóge ci waat ci ne ma pourtant nii nii sax boo bëggoon ma takk la ndax nag mun naa laa takk ci lislaam donte yaa ma mag nee na jour boobu ma arsale ko ni ko yow duma sa moroom ñaar ay waxi jëkkër taluma ko dañ laa booleeg man pour nga dindil ma liggéey nekk ci man nga ne mën nga ko kon dindil ma ko nee na xanaa boobu bu sama xel mi mbalaxoon tuuti ma xam ne kii nii lay mujjeeg man mais nee na aw xalaat bu ñaaw ci moom ba ni ma joxee gàllaaj bi ba jekku ma ndeysaan nee na waaye paa bi ni ma lenn de la ko xamal dëgg la maaraa bi la jox gàllaaj bi def na la lu ñaaw waaye dafa fekkoon ci yow def def yu bona bona bona bon mu joxaat la gàllaaj bi gàllaaj bi ñëw daal ci yokku looloo tax affaire bi gën a am doole ndax yow maara bi daf la daf la def gàllaaj pour noob la pour sekk yow bu dee benn yoon sax mu dem mais liggéey bi nekk ci yow moo garaaw te liggéey boobu lépp lu la dal moo la ko teg te liggéey bi soo ko tojul soxna si dinga bari ay doom ay doom dinga ko bëri te ay doom yu góor kese ngay am ndeysaan te c'est vrai nee na ma soxna Faatu ki ma xale bu góor bi ëmbal góor la kii ma ëmbaat nii paa xool na ko ci seet bi nee na ma góor la te paa bi nee na ma boo tojul liggéey bi boo ci jógul dinga bëri ay doom gis nga doom ji nga ëmb nii maa ngi gisaat yeneeni yeneeni doom yoo xam ne doo xam sax foo koy jëlee comme ni la dal nii rek la lay dalaat dangay yeewu xoole rek xam ne ëmb nga ndeysaan ma ne ko est yàlla suñu boroom mu ne ma mais soxna Faatu paa boobu ku baax la dimbali na ma ci lu bëree bëree bëree bëree bëri ba li ma waroon a dal ci lu bëri daal di wàññeeku ba yenn jafe-jafe yi wàññeeku mais nag paa bi lu leer la ma wax nee na ma dinaa la wàññil lu bëree bëree bëri mais lépp mi ngi ci gàllaaj bu njëkk ba xaw ma sa la xaw ma sa lu mu doon kooku def pour ma dindi ko du yomb mais daal dinaa si wàññi lu bëri yàlla baax na ndeysaan ma ni ko eskay ci yàlla fii laay yemale troisième partie euh, ndaw si bi mu demee ci paa bi paa bi ne ko dinaa am lu ma ci wàññi mais nag mënuma dindi lépp boo demul nag ci ko goo xam ne moo ma gën a aay mu dindi la lépp say doom dina bëri jaaxle daal di koy dikkal paa bi wàññil ko lu bëree bëree bëri ba fan yooyu donte ëmb na waaye am na tuuti tranquillité ak stabilité ma yemale troisième partie bi fii après ñu dikk ak yéen ci quatrième partie histoire ndaw si lii di wone ne rek ndaw si euh, ba mu nekkee disket ba léegi ndax premier taxi maanam bi moo yàq àddinaam mu amaat beneen jëkkër kookook yaayam yàq àddinaam def ko ay def-def moo ko topp ba nii nii mu nekkee magum jëmm nekk jeeg nekk diriyanke ba tey euh, dundul bànneex le reste nag dinaa leen ko indi la ci quatrième partie bi ngeen xam ne ndaw si dund na lu méttee méttee métti ndeysaan nee na ma soxna Faatu damay toog di seetaan sa histoire ngay nettali ay histoire nee na ma ne cëy ndeysaan ñii de seeni problème du dara comparé ak sama bos sama bos moo gën a metti ci àddina ndax ba ma juddoo ba tey xaw bànneex ay ca euh, ban ñàkk bànneex boobu dina ñëw ci quatrième partie bi suba lay doon incha allah leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu suñu DG Seylati euh, Papa Sey moo nekkoon ci caméra bi ñu koy nuyu bu baax a baax d'ici là portez bien e bon suite de programme sur Thiès Info ñu daal koy terminer ak baay baay